xam nga Cheikh Kanté njariñ képp la dafay jàppale président di jëriñ président te jëriñewul président gis nga bi mu diggee Thiès gars yi di wax c'est que xam nga luy cooy ay masque lañ yor du ñu gaynde doon la naan xuux boo arriéré ñu topp waaye buñ la nee xuux nga tekki sa masque jàkkaarlook ñoom ñu xam di jàmbaar bi waaye leader bu mën a jàppale askanu Thiès fii ci président Macky sax amu fi nañ président na jël xoolal ku mel ni Omar ñoom ca caajaay ñun dem nañ soutenir ko ci élection yi. Mm-hmm. Maguette Sène. waaw ñun président Macky Sall suñu Babacar moo ñu ñor. Maguette Sène ñun moom la ñuy xëyal di ko gontal suba ak ngoon guddeeg bëccëg. seen jàppale yemale wala. yemale wuñ ko ci Thiès rek ndax ñun département bi am nañ fa ay nit. Mm-hmm. waaw kon li war président Macky Sall na xippi bëtam. Mm-hmm. xool am na ñoo xamante ni bi ay góor pire lañu. ñu ngi ànd ak yow suba ak ngoon guddeeg bëccëg lu ñu am ñu ngi la koy jox. lu seen alal fekkewul dara suba ak ngoon guddeeg bëccëg ñuy yëkkati seeni alal ak seeni i coono seen i ñaq ko jox kon li war président Macky Sall mooy ñooñu nga bàyyi leen xeet arab yi nee na isa akramtal karima malaktahu as gor ku ko taral yaa ko ma xoola Adama Diallo ca Gossas wallaay Adama Diallo ni muy ni mu ni mu ni mu ni mu gagné Gossas gépp ba amu fa ko mm. opposant ba wëlbatiku ñëw jël ñaari buti amum jébbalu ci moom mais loolu la ñu loolu la ñu loolu la ñu doyee ni xool na Mamadou Thiaw ca taset ne Fatou Ndiaye coxol jàmbaar yooyu nga yor nga xamante ni bi suba ngoon guddeeg bëccëg ñu ngi tuur seen ñaq ci yow. ñoom euh, Umar Youm ñoom Maguette Sène ñoom nangam ak nangam ak ñi gañe waxul waxuñu ko mu dàq kenn waaye nag na sédd xel foofu lay foofu laay ñëwee xamante ni bii maanaam du leen den war a bàyyi xel ñooy am tuuram nga tuur day am li bàyyi ngeen fay di wax Omar Dem ni ko ah, mën nga loo mënul mën nga lu nu mënul loolu mooy dëgg <laughs> moo talenta la ñooy am turam président Macky Sall Cheikh Kanté ci tuuram yi la bokk Omar Youm ci tuuram yi la bokk. Adama Diallo